yaa jogaat yow way ka am way të diin galenub ngërëm ak cant jox ko jogaat yow way ka am way te jiin ga lenu ngërëm ak cant joxu ko bismillahi rahmani rahim madhun limam jaara bahrul wayka ka am way te diin galenu ngërëm ak cant jox ko jawante ka joga yow way ka am way euh, salaamaaleykum àdduna salaamaaleykum waa senegaal yéen ñi nga xam ne yéenay suivre 24 actu macha allah man Bass Bari Bagage tey maa ngi fii macha allah. ànd ak soxna Rama Mbacke tracteur bi nga xam ni nee naa la moo téye dëkk bi lu mu sàjjul baaxul lu mu fu mu ñëwul baaxul macha allah xew lool nag sët suñ Abdourahmane bi borom daam sa maama jàngal ñi fi gën jàngal ñi fi raw waaye ñu mel ni soxna Rama te dana ñëw fi fekk la fi ngay liggéeyee nga am cérémonie ñu ñëw gis la nga defar taabul yi ba mu rafet macha allah décorer lu am jom hmm, teg lu rafet lu neex a gis euh, ñu lay laaj kenn ni yow ndax ci cérémonie rek nga yam mariyage wala yaa ngi jaay sa ubbi nga place boo nekk wala ci cérémonie rek nga am. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah ñoo ngi nuyu ñëpp di ziar ñëpp di kontaan ci seetsi gi ngeen ñu seet si tey ci suñu liggéeyukaay bi waaw liggéey bi nag ñoo ngi ci biñ ko tàmbalee yàggut. waaye ñu ngi ciy sant suñu borom bu baax ci sant suñu yaakaar tey la Cheikh Ahmadou Khadim mi ngi ñu ci jàppale bu baax a baax waaw bas li nga laaj am nañ place am nañ place waa ñi ngi fa di jaay ñi ngi jaay añ ñi ngi jaay reer ñi ngi jaay ndekki euh, yemuñu tamit ci cérémonie yemuñu tamit ci jaay boobu rek ñi ngi ci cérémonie mariage yi baptême yi ak màggal yi hmm, yooyu yëpp tamit ñi ngi ciy yëngu. waaw macha soxna si mu mel ne kàddu yi rafet na lool euh, ndax mën nañ xam ni day livrer ci place bi mu nekk day togg di livre wala day togg nit ñi di ñëw di jël sur place di reer loolu lañ bëggoon xam. waaw parce que yooyu yëpp dañ koy def dañuy livrer dañuy def suma à domicile dañuy def tamit sur place yëpp dañ koy def ci place ba. waaw ah, macha allah kon nit ñi dañuy ñëw di rees ak yëpp. waaw mu mel ni euh, est-ce que ci cérémonie rek nga yem macha allah ci maanaam réception rek ngay defar wala cant yaa ngi ci. ak màggal yi yëpp daal ndax soxna Rama buñ ko woowee ci loolu pour mu ñëw def lii dina ko def. waaw du yemuñu rek ci mariage yeeg ñi ngi ci mariage yi ñi ngi ci ngénte yi ñi ngi ci màggal yi ñi ci lépp rek pose café réunion waaw yooyu yëpp ñu ngi ciy yëngu ay yooyu yëpp daal ñu ngi ciy yëngu. macha allah macha allah soxna Rama euh, kaddu yi rafet na lool kontaan ci yow ndax euh, ku baax nga waaye ma leen di xamal ni ku bëgg lu baax. te bëgg lu sell lekk gu neex da ngay seeti soxna Rama tracteur bu mag bi macha allah xale bi nga xam ne moo xew ci jamono nee naa la kenn dematul Dakar te li ñuy passé di ko demee dakaar nañ ko téye boole ko ci liñ war a liñ war a di dem dakaar def ko ci lekk yi woo soxna Rama mu ñëw bàlle sa buddi sëñ Mbàkke Maaram kon kontaan nañ ñoo ñëwoon seet si la di la jaajëfal nag nga doon ko baax ku nu bëgg bëgg ñëpp oyof kon yàlla sa jàmm yàgg wala salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu sëriñ Mountakha yàlla na fi yàgg te wet di nuyu sama sëriñ sëriñ Maodo Ablaye Mbacke jërë ngeen jëf. yoon nin bu wér laa da ko jaay lépp ba am ko surtout bu yónneen bu wér laa da koo jaay lépp jënd dërëm ba am ko. setub yun ko yun nin bu wér laa da koo jaay lépp jëndërëm ba am ko ci toppal nangu ak way deng ak muñ ak farloom te lépp yitte lal ko laxun sa tub yëpp nen bu wér la da ko jaay lépp jël jënde ngërëm ko ngeen